non no fii moom ay sénégalais ñoo fi ñëw di jënd ko waaw ñoo xamante ne ñoom ay ñii di di ñaw ay yére yi ñoo fi ñëw di ko jënd dem ñaw ay yére yi waaw dañ ko boole ak yeneen tisset yi yoo xamante ne ñoom mën nañ ko def ay ay pantalon sax ensemble waa nañu lañ ko liggéey quoi. bu njëkk woon dafay gën a yomb mais léegi dafay nekk ci dëgër ci ñun wëñ mi dafay seer wëñ mi dafay seer fii lii dafay seer léegi. ah am nañu jafe-jafe bu bëri de gisoo fu ñuy toogee nii taw tàngaay bi. instant yi moom mooy loolu xam nga affaire euh, instant yi moom li liggéey bi du dox comme si si mu ngelaw bi xam nga. waaw instant yi dafa taxaw de xam nga nawet bi moom njaay bi dafay taxaw waaw. seddaay bi la gën a dox voilà mais tàngaay bi moom. xam ngeen saa yi moom ñun étudiant dañu dañoo fi bëri di liggéey ko mais bu fekkee si temps yooyu comme ça décembre wala euh, janvier bu fekkee ñun ñëpp ñibbi ñu fi nekk bëriwuñu waaw dañu koy liggéey après ñuy génn comme